dañu lay raw dina giite ngay réccu dëkke am mer ngalawaay bul tas waa rajo Sud FM jaar nañ fi léegi ba def seen reportage ak éléments yi ñu jël waa Touba mission jamono jii ñi ngi amal conférence bi en direct ci seen site internet bi ku ca dem di ko mën a topp ak ñun ba mu jeex waa Mourchid TV yi tam teew nañ waa Tawfekh TV yi itam teew nañ waa UPAC ñoom itam teew nañ ñoo yor télé yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy seetaani ci biir tànt bi waa jot li itam teew nañ ñoom ahmad ba ak xale yi nga xam ne ñoom la àndal def rek mooy jox imaam Salim Mbow mu ubbil imaam ahmad daal ñu daal di tàmbali waxtaan bi أيها المجتمعون الكرام السلام defoon nañ ko daaw fekke déwén moo tax xëy ko def waaye nga wax ne ni conférence bi doxee yëpp mën a xamal daal moo nekk sa thème tey mu ne jikko yu yàqu yi mu nekk thème boo xam ne xam naa xaw naa jafe ndax eh, jamono bi ñu toll nga xam ne jikko yu yàqu yi dafa def doomi aadama ndax doomi aadama cosaanam mooy jikko yu baax. mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngi leen di nuyu di leen ziara. di leen ndokkeel di leen ndokkeel ci at mu bees bi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk benn bi yonent bi gàddaayee ba léegi ñuy ñaan borom bi tabaraka wa at mi ñu génn yàlla na yóbbaale suñ bakkaar yi yàlla na yóbbaale suñ bakkaar yi yépp te at mii ñu dëgmal yàlla na nekk atum xéewal atum barke atum jaamu yàlla bu yàlla nangu atum wér yàlla na ko ci yàlla def te yàlla bu ren nekk suñu mujj tamxarit wax jooju yépp nag maa ngi koy wax di ko teg ci loxo al ustaaz al kabir habibul umma Oustaz Alioune Sall moom laa koy teg ci loxoom ndax mooy sama bunt ci yéen loolu la yàlla dogal di ko li kóllëre di ko fettali ñaan di ko fettali yéene yéene yi mu yàgg fi lool te ànd ak wér ni ko mbokk yi ñaane ndax moom su fi yàggee te lu bari ci li naqari jullit réew mi dana fi jóge su fi yàggee te lu bëri lu julli di xemme moo na gis ci seen réew danañ ko fi gis ku mel noonu kon ñun ñëpp ñoo am waru garu ñaanal ko may feddali ko lër a gis suñ diggante di ñaan yàlla mu sàmmal ñu ko euh, cofeel gi yàlla sàmm ko ba ñu daje ci kanamam mu gërëm ñu mbokk dugg àjjana yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def finance sama diggante yow amatul lu ñuy wax il faut nga yàmbare lool door bañ a comprendre waaye boo amee yitte tuuti tuuti xam ne man maag yow du ñuy ñaar kenn lañ loolu la yàlla dogal loolu yow saa yu ko parce que foofu maa fa nekk <laughs> donc loolu la yàlla dogal ren tomb bi ñu tànn mooy almujaharatu bi fi'li alfaaxisha wa zina min ajaa'ibi suwari alinxiraaf min ajaa'ibi suwari alinxiraafi fi alwaaqici almucaasir fi albilaadi alislaamiyati zaahiratu almujaaharatu bi fi'li alfaaxishati wa zina aw addacwatu ila ficliha aw izhaaru alicjaabi bi ahliha bi wuduuxin wa duuna muwaaraatin aw xayaain aw xajal wala rayba annaha zaahiratun xatira wa musiira wa muarriqa li dawi lgayrati waldiini walmuru'a wa kada masalatu intishaariha wa ishaacatuha fi shaashaati al-iclaami al-mar'i wal qanawaati al-maftuuxa al-xaassa wal caamma wa kadalika al idaat al masmuuca wa suxuf wal majallaati wa dawriyaat wa qad jaa an nahyu fi shar fi shariatina wa axlaaqina an ficli dalik faqad qaala taala muxadiran haula almujaahirina biha inna alladina yuxibuuna an tashia alfaxishatu fi alladina aamanuu lahum cadaabun alimun fi dunya wal axira wallahu yaclam wa antum mbokk yi euh, li jaaxal ñépp xër gi am ko xër ci fisal mbon ci société bi li jaaxal ñépp mbon moom mbon moom yàgg na fi parce que mbon ak mbaax ñoo ànd te boobu bu bon amuloon baax du nekk mérite li tax baax fexe ba baax li tax ku ko def yelloo jërëjëf mooy li fi mben di fi mbon nekk te bon gën a yomb baax bon moo gën a yomb baax kon bon Moustapha nekk naka jëkk waaye nag naka jëkk itam bon dañ koy nëbb dañ ko daan nëbb naka jëkk ñi baax bëgguñu woon mbon fés ñi bon sax bëgguñu woon mbon fés kon lan moo xew lan moo xew ba tax jamono jëpp jóg ay équipe ñu def ay équipe wut ay moyen pour fexe fésal mbon lu tax loolu lu tax ñu bëgg mbon fés ba bu bu fu mbon amul sax ñu keree ko yu bëree bari nit ñaa koy dégg léegi buñ ko mësaan a dégg seen fit dem léegi dañ koy dégg mu jaar mel ni dara xew ay mbir yu ñaaw ay wax yu ñaaw ay jëf yu ñaaw ay nit di ko fësal di ko yëgle di ca woote di ca woote di naw ña ca bokk loolu daal lu doy la moo tax képp ku mbaax ñor képp ku mbaax neex sa xel dalu sa xel dalu te béguloo ndax lii raam su àggee ci ñag ba ñépp seen awra nekk ci biti ndax luy yiir awra du fi amati lii raam su àggee ci ñag bi ñépp seen awra nekk ci biti ndax awra du amati lu ko yër te nag nëbbu awra moo ñu wutaleeg rab yi nëbbu awra moo ñu wutaleeg rab yi kon suñ demee ba li taxoon ñu gën rab yi ñu tànn def ko bu boobaa rab yee ñu gën ndax lu la tax a gën sa nawle soo ko bàyyee doo yem ak sa nawle sa nawle da lay gën kon suñu nëbb awra wuuteleeg rab yi bu ñu fësalee suñu awra yi rab yi ñooñu gën ndax bu rab amoon xel du nangu awram nekk ci biti kon mbir mii ñu dugg mbir mu garaaw la garaaw boo xam ne ñàkk koo waxtaane erreur erreur la ñàkk cee jóg ñàkk xel la war nañ koo waxtaane war nañ cee jóg ba mu jóge fi lislaam musta nangu ku fisal mbon mus ko ndax bu mbos bu mbon yàggee fis bu mbon yàggee fis ci bonoon duutu am kersa ci bonoon bi waaye ñi baaxoon dañuy ñemee bon lu garaaw la li may wax nii lu xóot a xóot la su mbon yàggee fés su fekkee ku bon man koo fésal bu bon yàggee fés ci mbonoon duutu am kerse ci mbonam gi kon du bàyyi bon du bàyyi bon waaye ñi baaxoon sax duutu ñu ragaletee bon ndax fu ñu tourné rek gis fa ñu bon daa mel ni léegi la mbon gën a yaatu déedéet mbon naka jëkk mi ngi fi waaye léegi la mbon gën a siiw moo tax siiwal mbon ku bon a koy def siiwal mbon ku bon a koy def ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel bu am na ci dëkk bi ñoo xam ni siiwal mbon lañ def métti te ku leen wax ne bokk leen ci ñu baax ñu mer il faut ñu tànn nañ tànn waxuma sax ne kuy siiwal mbon ku bon nga waaye kuy siiwal mbon da nga torox bala ngaa dee xëy na nit ñi bañu ñoo bon mais bañ nañoo torox kon ma waxaat ko képp kuy siiwal mbon ku bon nga te ku bon bala ngaa dee da nga torox da torox fii ci àdduna ba ñépp teg ci seen bët ndax yàlla moo ko wax te yàlla musta wax lu def lu mu def musta wax lu mu def ñu mës a ba mu jotee gis nañ ko kon suñu aayee mbon ba pare aayee ñu siiwal mbon ba pare ne ku bon ma toroxal la ku bon di nga torox yàllaa ngi wax ci sóorat nuur aaya fukk ak juróom-ñeent inna alladina yuhibbuuna baatu yuhibbuuna boobu na ngeen ko bàyyi xel baat bu yaatu la yuhibbuuna an tashia alfaaxishatu waaye fan fi lladina amanu ñi nga xam ne dañoo bëgg wane ne jullit ñi ñu bon lañ ñi nga xam ne dañoo bëgg a wane ne jullit ñi ñu bon lañ ndax lu bon rek la ñuy def yéen a ko yëgul dafa am ay ay institution dañu créer ay institution jox leen ay jumtukaay pour ñu wane ni jullit ñi ñu bon lañ ñu bon lañ mbé bu bu ngeen ko gisut da koo yëgul rek kaay leen moo wan leen ne ñu bon leen danaa ci dellu am na fi ay émission yoo xam ne danaa leen tudd man aw ma woon habitude di tudd ay mbir ci sama njàngale mais léeg mu laaj ay ay émission yu tudd tës tës émission bi tudd xalaas loolu rek ay liggéeyam loolu rek mooy seen liggéey loolu dong mooy seen liggéey fisal mbon fisal mbon wane ne jullit ñi ñu bon lañ lu bon loo dégg jullit yaa ngi koy def boo ko yëgee boo ko yëgee loolu mooy seen liggéey ma bëgg leen yëgal liggéey boobu ñuy liggéey li mu leen di njëkk a lor mooy toroxal leen fii ci àdduna parce que yàlla moo ko wax yàlla moo ne inna alladina yuhibbuna an tachia alfahishatu fi alladina fi dunya adab alim yàlla bu nee lu métti métti na ndax yàlla daraam baatu azab rek doyoon na parce que azab mbugal lay firi yàlla neen ñooñu danaa leen mbugal waaye mbugal mu métti fi dunya wal axira fii ci àdduna sikki nekkul ci sikki ku ci métti ci métti yooyu balaa yàgg nga torox bu ma ko fekkee bu ma ko fekkewul nit ñi danañ fekk sa toroxtaane boo tuubu loolu jaru sax dem te ñëw ndax yàllaa ko wax te yàlla lu mu wax dëgg la ndax lu mu ma wax dëgg la mu ne wallaahu yaalam wa antum laa taalam su yàlla ne bàyyi leen siiwal mbon mi la muy jur yéen bu ngeen ko xamut it man xam naa ko su ma nee bàyyi leen siiwal mbon mi siiwal mbon gi bàyyi leen ko siiwal la muy jur su ngeen ko xamul it man xam naa ko siiwal bon lu bon la loo xam ne du jur jàmm aaya e bi cheikhul mufassirin mi nga xam ne moom la ñuy dàkkanteel ibnu jurayr ibnu jarir at-tabari dafa wax ne inna alladina yuhibbuna an yadi an yadia zina yudia zina wala yadia azina fi alladina saddaqu billahi wa rasulih wa yadharu dalika fihim lahum adabun alim jurayr daf jarir dafa wax ibnu jarir dafa wax ne ñi bëgg njaaloo siiw fan fi lladina amanu c'est-à-dire ñi bëgg a won waa dëkk bi ne jullit yépp ay njaalookat lañ parce que booy déglu émission yooyu moo xam tes bi la wala xalaas bi ñoom li muy wax mooy benn jullit bu dul njaaloo amut loolu leen bëgg a wax jenn góor gu dul njaaloo amut da ngaa xamul fu muy njaaloo rek benn jigéen bu dul njaaloo loolu lañ bëgg a wax ñu dem ba kenn wóolootul kenn kenn wóolootul kenn loolu c'est dangereux fi ñu jëmale Sénégal fi ñu Sénégal mooy ñëpp a bon ñëpp bon du dëgg ñëpp bonul du dëgg ñëpp bon lu mu néew néew am na ñoo xam ne duñ def mukk lu bon te di ko tey te ñu bari lañ aussi